wàllum daal waaw nee koo xam ne dafa faatu waaye ba mu faatu boobu fekk na at fekk na ak asaka war ca mbay ma ñu ki bu dee mbay fekk na mu ñor ba asaka war ca fekk na bu wala xaalis fekk na at mu mat ba mu kon su boobaa dañuy jekki jékki asaka lépp rek benn yoon door a xam ne asaka ji génn na ba noppi bu fekkee day fekk mbay mu ñoragul nag booba kon ba mu faatu asaka waru ca kon dañuy bàyyi rek ba séddoo ci àggee ba ñor bañ seddoo kenn ku nekk sa wàllu matee nisaab asaka war la matu nisaab nga xam ne asaka war la mm-hmm. bu dee moom lu mu dénkaane nañ ko génneel muy asaka itam kon ñu génneel ko ko rek kon wa yustaxab bu def na sopp fii sadaqati tatawuxi ci saraxus coobareew assiru nëbbu maanaam sarax soo xam ne yaa koy def ngir yàlla waaye du asaka ju la war kon sopp nañ nga nëbbu kenn dañ koo xam lu may yàgg yàlla waaye bu dee asaka ji nag moom nee nga fësal ko ndax ñu roy ci yow nga fësal ko te bañ caa jublu ngistal maanaam nga fësal ko rek ngir ko seen roy ci yow joxe moom itam asakaam loolu nee taamu nañ ko wasarfuha ak joxam koy wax soppi waaye mooy jox lil aqaari bi ñeel jege ñaale yi wala jiiraani ak dëkkandoo ya ah nee na saraxus coobarew ngir yàlla moom boo ko mënee jox say dëkkandoo ñoo ci gën ak say jege ñaale ndax sa mbokk moom boo ko saraxee da nga ni boole nga yaar sarax nga ko jot nga bokk sa dëkkandoo itam bu ko weesu jëm ci kenn ku gën a sori booy saraxee daal moom ku la gën a jege rek te la ci rek jox ko te ak këru dana feddaliku fii chahri ramadaan ci weeru ramadaan nee na weeru koor nag ci liñ gën a saayu ne taamu nañ nga saraxee ngir yàlla waaye ci weeru koor lañ koy gën a taamu faslun sadax bu fitri muurum koor waajibat aju war la faradaha sos dogaloon na ko rasulullah alayhi wa sallam man nga nit faradaha sos farataaloon na alayhi wa sallam àndaa bu wax ne asaka mee nga weesoon moom alquran da ko santaane mhm. waaye nag fii nga toll wi koor yonent bi ci boppam alayhi salaatu wasalaam moom moo ko santaane moo ko waral ci képp koo xam ne rek war na la tajibu dana war bi awwali laylati iidil fitri ci ci njëlbeenu guddi feetu korite gi ala ahadil xawleeni ci benn ci yaari wax ya al mashhureeni ya duñ siiwal wal aaxar wax ba ñu des nag mooy tajibu dana ware bi tulluwaayu fajri yawmil iidi ci fenku fajaru bisu biir ba nee nañoo wute ci wan waxtu la ware am na ñu ne jant bi soowee tey ni suba la korite rek waxtu ba jant bay so ca la ware te it du tàlli di wéy as ndiir rek lay am waxtu war ba daal di jeex kon fu jant bi soowee rek ba nga teg ca as rek wax ci waxtu ñu ci wax ci waxi ñooñu waxtu war ba jeex na waaw ñuy wax ne déedéet bu fajar fenkee waaw ci bisu fiit bi ca la ware mu ne nag wa faa idatul tadharu dana feeñ fii man ca ka nga xam ne maata faatu na aw wulida wala jureef ko aw aslama wala mu tuub aw naxwi zalika wala lu mel ni loolu nee ngir yaari wax yi wax ni waxtu wee la war ñee ne déedéet ci waxtu wee la ware dana feeñ nag ci boo toppee ñee war koo génneel kii te boo toppee ñee doo ko war a génneel kii mel ne bu fekkee danga nga ne jamono yi jant bi sooyee rek ci biñ ne suba la korite boobee la murum koor war kon koo xam ne yooyu jamono fekkutoon mu nekk ci àdduna mooy gannaaw bi la juddu wala gannaaw bi la tuub kon yooyu jamono dis ko war a génneel murum koor te boo toppee na yooyu jamono ñu wax ne fenk ko fajar ci la waree nag su boobaa kon ñooñu ñaar dees na leen ko war a génneel ba tey boo toppee wax yi ñu wax ne jant bi soxee rek ci biñ ne suba la korite ci la muurum koor war boo ci tegee ndiir rek mu daal di jeex kon koo xam ne jant bi sonné ba teg ci ndiir mu door faatu kon kooku faatu ga du tey ñu war ko koo génneel ndax kon jamono yi jant bay so fekkutoon mu faatu waaye nag boo toppee ñu wax ne mi ngi war ci fenku jant su boobaa kooku moom du ko war ndax ba jant bay fenk day fekk moom mu génn àdduna moo tax fekk na mu faatu moom waaye mën ngaa jàpp rek wax ji gën a wóor wax ji gën a wóor mooy bu jant bi soxee ci buñ nee suba la korite la war nga waaye nag bu ko tax a tàlli maanaam boo ci tegee as ndiir rek waxtu war nga daal di di jàll waaw kon jàppal ne bu jant bi soxee bañ teg ci as ndiir rek foofa la waxtu war nga yem la ca toppaat bukk ca jooju wax nag moo gën a wóor fa yajuuzu na dagan ixraajuha ak génneem xabla yawmin xiidi njëkk bisu korite bi bu yawmin ni ñaari fan wala salaasati ak ñetti fan nen dagan na bu korite gi desee benn fan wala ñaar wala ñett koy génne fi saasa xaar ba mu war wala tas xutu durot bi mudd yi samani xaa ci wérul jamonoom jamonoom mooy bisub korite bi nee na boo génn yoo ko ba jant bi sox ci bisub korite bi da nga am bàkkaar ci yeexe gi bañ ngi génne ba jant bi sox te lu tax mu wàcc la wala tudd fa mu def ko ji illaa li faqirin dara ñeel aji ñàkk xormin kuy gor muslimin ku dib jullit nee na murum koor moom da koy jox koo xam ne loru na ca te ëpp jullit boole ci te nay gor xam nga bu dee jaam dañuy jàpp ne ab sangam moo gàddu léppam kon kooku moom loruwut waaye nag bu dee gor tey jullit ba noppi loru nga jox ko ko wax yéen moom saaxun benn saax lay doon min xaali bi xooti ax yu baladi ci la ëpp ci dundub ñuñ dëkk ba alal muslim war ab jullit kay gor al mukallafi kay mukallaf al muwasidi kay aju woomal si ci walis boppam waxaaman ak walis ka nga xam ne tal sama xoo dana ko war nafaxatuhu dundam ba minal muslimina ci jullit ñi waaw ah, nee na murum koor moom saax lañ koy tolloolee saax na dañ cee wuute am ñu wax ne mutul ñaari kilo am ñu wax ne ñaari kilo la am ñu wax ñaari kilo ba ci genn wàll am sax digg naa ñu mujj wax ñetti kilo sax far ndoy waar lool waaye daal gën ngaa bari moom boo ko defee ñaari kilo génn wàll moom moo war a doy sëkk kon benn bopp bu ne saax lay doon bu dee doom boo génne ñaari kilo rek mu daal doy nga seet ñi nga war a dundal nag boole ci moom lay bëgg a wax moo tax mu ne ak ko war a dundal ci jullit ñi xaasatan doom bil xaraabati ci jege ñaale kal awlaad ni ki doom ya wa bi riqi ak ci ak njaam kal xabit ni ki ay jaam wa bi xëyri hima ak ci lu ñoom ñaar ka sawjati ni nee na mën naa am kooku yaa ko war a dundal ngir jege nga jege ci mbokk mel ni sa doom sa ju góor yaa ko war a dundal ba keram mu doon magam jëmm mën a liggéeyal boppam sa doom bu jigéen yaa ko war a ba keram koy may jëkkër ba jébbal ko ko ñooñu kon yàlla war a génneel murum koor da nga am ñu alal sab jaam jamono yi jaam amee yaa ko war a génneel moom ndax léppam yaa ko gàddu ba tey koo xam ne tax ni ko dundal du mbokk du jege waaye ak dencante la mooy sa soxna sa soxna lu woomal woomal lu bari la bari rek yaa ko génneel murum koor ak bu amee ak jaamam boo xam ne jaamu boppam la du rek mbindaan mu jël di ko fay weer waaye ab jaamam dëgg la kon mën nga ne waxaadi su boobaa yaa ko war a jaamu soxna si mu ngi génneel soxna si ba inkaanal ak donte nekkoon na moom soxna si ma lii yatan di aji woomal bu soxna si bari woon alal du tee nga war koo génneel wa xawli naa su suñu wax xalal muslim war ab julit ilax ilax mooy ilaa xirihi ba ci ak mujjam ihtiraasun ak wattandiku la minal kaafiri ci bi biyeefar war raqiix akub jaam wala mu'siri ak aji ñàkk fa innahaa naka muurum koor laata jub du war xalihim ci ñoom ah nee boo gisee ñu waxal la fee ne la mi ngi war ab julit tey gor tey mu kàllaf te man ko nee na safaan ba lañ bëgg a génne te wane la kon koo xam ne yéefar la wala jaam la wala daa ñàkk yooyu ñëpp waru wal muhsiru aji ñàkk nag moom ëllës yi mooy ka nga xam ne laa yafdulu du des la foo ñel ko an xawat yow mi ci gannaaw dundub bisam ba saaxun lu toll ne saa walaa yoji du tey du am man koo xam ne yu salli foofu dama ko lebal iyaahu moom dana bu ñekku ñàkk ci mbirum koor mooy koo xam ne bis bi bisub korité bi bu génnee la war a jëfandikoo ci bisub korité ba la ko des du mat saa su boobaa saye bu génneel la war a dundee ci bisub korité ba la des saye mu joxe ko rek dégg doon fi matul saa itam te am koo lebal am nañu ne bu amee kooku ko lebal tam yaakaara mën a fay euh, kon na ko koo lebal mu génne ko waaye bu fekkee ne amul koo lebal mbaa am na ko waaye yaakaar lu ko mën a fayee na bàyyi albaabu lii mooy bunt ba arrabixu bi aji ñeenteel fi saw mi ci koor yàlla lii mooy buntu ñeenteel bi aju ci koor waxoo moom koor al imsaaku mooy bàyyi jàpp la baat bi firi waaye mooy bàyyi rek an shahwata yul batani walis ñaari bànneexi biir wal farji ak sawukaay yow man ab bis kaamilan bi aji mat bi niyati taqarru bi ànd ak yéene jegeñ lu jëm ci yàlla taxalaa kawe na nee dëgg-dëggi koor mooy li dalee fi nga xam ne fi la fajar fenke ba jant bi so nga bañ faj sa bànneexu biir ak sa bànneexub sawukaay te loola nga jublu ca ak jaamu yàlla boo jubloo jaamu yàlla ci loola moo koy taxa mu doon koor moo koy taxa doon koor waaye diggante boobu su bàyyi woon bànneexu biiram mbaa bànneexu sawukaayam te tax mu ca koor ni mooy yéene yàlla du ko taxa doon mm-hmm. bu fekkee maanaam jubluwu ci ak jegeñ yàlla ci boppam waaye rek koor la ci jublu rek koor gi koor bi wax la ci jublu rek ba tey baax na doon di sax fàtte ne yéen ci jegeñ yàlla mbaa dara ndax jaamu yàlla di tax jege yàlla du ci du ci dara moom liñ bëgg wax rek mooy bu jekk woon jekki diggante boobu lekk fa naanu fa def fa lenn ci lu yàq koor waaye fekk jubluwutoon a woor rek daal du doon woor loolu daal mooy gàttal bi fi xayri zamanil xaydi ci lu dul jamonoy mbërëk wal nifaasi ak wasin wa ayaamil ayaadi ak bisi xiit yi day aaj jamono yi ngay woor muy jamono joo xam ne sañes na ko woor ci yow ne bu jigéen ju gis deret xam ju mbërëg la moo xam ju wasin la yooyu jamono day araam ci moom mu woor kon yooyu jamono du sañ a woor bu wooree du baax ba noppi itam def na lu araam bisi feet yi nga xam nañu ñoo aaye bu ko woor itam ni ki wala ñaari fan yi nga xam ci bisub tabaski bi itam kon na ko moytoo woor kon moom leen woor wali saw mi ñeel na koor talaasatu arkaanin ñetti ponk maanaam koor am na ñetti ponk mbaa nga ne ñetti farata al awalu bu njëkk ba al imsaaku mooy bàyyi baat bi ci bopp mu jàpp lay firi waaye maxnaam mooy bàyyi xanil muftiraati walis way dog koor kal jimaahi ni ki booloo wa ixraajul mani ak génne maniyu wal madi ak madiyu wal xëy ak wàccu wa isaalil akli ak àggale lekk wa shurbi ak naan aw xayrihima wala ku dul ñoom ñaar ilal xalqi jëm ci bëli ga minal fami tukkee ci gémmiñ wal an ak bakkan wal udduni ak nopp wal ni ak bët maanaam njëkk bi ci gàttal rek mooy nga ne nga bàyyi lépp li dokkoor loolu day moo gën a gàtt gannaaw ba nga door a tàmbalee teqale ne ni ki jotee ci sawukaay wala génne man yu ci coobareem te tey ko ni doonte donte day laalante ci yaram li agul ci sawukaay bi waaye day laalante ci yaram wala xalaat bu yàgg wala xool bu yàgg bu mu génn it loolu moo ko génnee loolu na ko moytu ko defee koor gi dog ko na moytoo génne masiw ci loo xam ne moo ko coobarewu su ko coobarewul moom te dara du nekk ak fekkee moo ko sàkku ba mu génn am na ci coobare kon koor ga dana dog na moytoo génne wàccu xam ne moom moo ko génne moo ko sàkku ni ki looju su fekkee dafa mel ne sibru daal jékki-jékki wàccu rek ba tey du wàññi dara ba itam na moytu lekk wala naan wala lu koy nuru mu àgg ci bëleem bu dee lu ruy moom lépp lu ruy moom xoosi ak ci bëli gi rek koor gi dog na moo xam daa jaare ci gémmiñ wala ci bakkan wala ci napp walla ci bët bu fekkee loolu ruyut nag ni ki aw xeer wala jërëm nag su fekkee ne àgg na ci bëli ga mu fexe ba yàbbi ko it dara lu ca nekk waaye lu ruy moom bu xoosi àgg ci bëli gi rek doonte àggul ci dox ga yëgoog àggam ca biir bay dutee moom koor gi dog ak taañu ñaareel bi an niyat mooy yéene si yasixu du wér saw mun koor bi duuni xaaji lu di yéene fardan moo xam day farata aw nafla wala muy naafila waaw nee na nga yéenee koor mu door a doon koor ni ñu ko waxee woon léegi su fekkoon ne lenn yàq koor defoo ko ci diggante boobu waaye yéene woo ci woon koor yi du ko tax a doon koor moo xam kooru farata la moo xam kooru naafila ko yéene ji mënu cee ñàkk aw yushtaratu def na sart fii haa ci yéene ji an mu nekk muayyanatan di lu ñu ràññeel bi an yan wee ci mu yéene adaa fardi ramadaana joox faratay ramadaan matalan ci misaal nee na yéene ji dañuy sart mu ràññi ko ni ki nga yéene woor bis bii mu bokk ci ramadaan wala boo ko ramadaan teru rek nga fas yéene woor weeru koor wi ndax moom bu xasee yéene benn yoon ci yooyu benn yéene bi mën naa doy bu fekkee demaatoo ba amul la ndokk mu bay yetatante lu ñu fanaanoo maanaam yéene ji des koy fanaanoo des koy fanaanoo mooy fi jant bi sooyee balaa fajar foofu nga yéene fekkoon ne suba da ngay na jant bi daa soo ni suba damaa war a war a waruma war a bàyyi ndax naaj daa tàng ngay déng déng noonu bu ñu xas fajar xas fenk jeex na mënut la warati dama yaa ko coobaree rek xam ne moom borom ramadaan nag moom faaw nga woor ba noppi nag fay bis boole ci ndegam war a nattable weer ba feeñ nam feeñut su borom a daal am du moom gannaaw bu wóoree ne feeñal na it du tee nga fay bis boobu te du tee nga bàyyi lekk naan ndax amu woon yéen ju daw amu woon fanaanu woon yéen daal ndax daw bi muy a ñëw ba tax ne falaa tas yi du wér naaran ci bëccëg yéen yu buñ ko defee ci bëccëg du waax jaas yi ma tam tey aju dogu maanaam yéen ji day dogu fan yi yetu yéen ji almutarat di detu ji aji deng dengi baatilatu aji yàqu la waaw nee boo de deng ci sa yéene bu baax mel ni mu wax ci rajo bi ne weeru feeñ na bu fekkee ne am nga ca looy déng-déng maanaam wóoru la far nga sax ci noonu ba weer fenk ah, léegi jeex na donte yéen woon nga woor waaye yaa ngi ci déng-déng googa xamoo da ngay jàpp nu ngay bàyyi loolu du baax. faman na waa ku yéene laylata shakki guddi sikki sàkk si yaama xadin woor ëllëg inkaana ndem nekk na min ramadaan di bokk ci ramadaan la mujj si du ko doy. loolu leen moo tax ñu aay woor yow mu chakki yow mu ki mooy bu war ramadaan amee ñaar fukki juróom-ñeent te asamaan si lëndëm ba neexut a xam ba xam feeñ na weñut kooku soo nee man yéene na woor suba ndax su bokkee ci ramadaan rek man ma tàyyi ci fayante su bu ci bokkee itam du tee nga fay ndax xam nga amu woon yéene ji dow da nga ne woon rek naa def ndax bu ci bokkee man ma sama jaan wàcc ñàkk ya dow yéene ji moo tax du doy ak taalis ñetteel bi zamanu sawmi mooy jamonoy koor gi waxoo moom min tolooxil fajri mi ngi tàmbalee fenku fajar as saadiqi kay aji dëggu ilaa xurubi samsi ba ci soxul jant fii xëyri ayaamil xaydi ci lu dul bisi mbarag wan nifaasi ak wasin wa yawmil fitri ak bisub korite wa yawmil naxari ak bisub tabaski wal yawmayni ak ñaari fan ña bax doxoo ci gannaaw bisub tabaski bi li xëyril mutamatti'i ñeel kudul ku def tamaton ñetteelu ponk yi moom nee na mooy nga fexe ba jamono ngay woore ñu sañ koo woor bu dee jamono juñ aaye woon niki li ma koy waxoon ci kannaaw jamono jigéen tolloo ci mbërëg wala ci wasin wala ñu tey di bisu korité wala tey bisu tabaski wala ñaari fan ñu ci topp yëpp dañu ku ko woor su ko defee koor gi nag fi fajar fenke te mooy fajar bu mujj gi ndax dafa am ñaari fajar fajar goo xam ne moo bu njëkk gi kooku moom ba tey jàpp jotagut maanaam bàyyee lekk naan jotagut fajar bu mu gi nag gi ñu tuddee salaatu moom ci la ñu nodd nag googu moom bu jotee ci ngay bàyyee lekk ak naan nag la gën a wóor sax moom su ko defee ne kon foofee nga bàyyi lekk naan nag ba kere jant bi so loolu mooy waxtu ñu war a koor ci boo dee koor fa jant ba moom ba fajar di fenkaat moom yaa koor di yéene yemoo ci lépp lu dagan rek mën nga ko muy lekk muy naan muy ci des dafa tudd nag ay fan yoo xam ne dañuy bañ ku leen woor ni ki jigéen bu tolloo ci gis baax koy wax mbërëg wala régal wala mu gis dereti wasin mooy deret joo xam ne am dooma ko waral yooyu jamono day araam ci moom mu woor xam ne sañu ko bu ko defee itam du wér waaye du ko sañu boole ci dana fay nag fan yooyu fan yu war a woor te gis deret wala mu am wasin dereti wasin su boobaa nag dana fay lu toll noonu ci fan bisub korite moom day araam woor ko bisub tabaski itam day araam woor ko wal yawmayni ba'dahu li ghayril mutamatti'i mooy ñaari fan yi nga xam ñoo topp ci tabaski bi bu fekkee ci sa coobare dong la doo ko sañoo woor bu fekkee dangaa def tamattu wala nga def xiraan nag tamattu wala xiraan ci aj nga koy jàngee ku def loolu ñu warloo ko ñetti fan te jotu ko woor ci bis bu ak bis bu mu taxawee arafa diggante ba dafa xat kon dana ñaari fan ñooñu la nga xam ne ñoo topp ci tabaski bi moom dana mën naa woor ñaari fan ñooñu moom waaye nag bu dee sa cawar na kon doo ko mën a woor faslun yustahabu def na sopp taqdimul fitri jiital dog maanaam gaawe dog lañ jublu wa taaxiru suxóor ak yéexi nañ ci koor bu la bi sono nga daal di dog waaye nag bu nekk di sikki sàkka booy sikki sàkka moom bàyyil ba am ci lu wóor ba tey sopp nañ nga xëdd te yeexe ko ndax xëdd moom mi ngi tàmbale rek ci bu guddi gi xaajee la fa tàmbalee fajar waxtu fi xëdd rek xëdd nga waaye nag nga xaar ba fajar ji jege dañ ko xewoon léegi sa digganteeg moom rek naa bàyyi lekk ak naan daal loolu moo gën a war sa digganteeg waxtu waxtu mu di salaat daal moom bu dee waa Tuuba dañ fiy jaarale fanaa juróom-ñetti minute wa kaful lisaani ak fekk aw làmmiñ xaanil xadayaani walis bebant wal fuush aw ñaawteef nal xaw li ci wax dina bokk na sopp ci koor nga téye sa làmmiñ bañ cee wax dara loo xam ne amul tuyaaba dañoo jëlee lu araam moom ëpp naa wax mbaa luñ sib waaye loo xam ne amul tuyaaba sañ nga ko wax nii rek waaye amul tuyaaba sopp nañ nga bàyyi ko bañ ko wax watar ku siwaaki ak bàyyi soccoo bi ratt bi ci bant bu tooy maanaam bant bu tooy day def ne boo ko soccoo ndox mën nga cee muucu bu jàllee koor gi day dog kon nag nga defee ko bant boobu moo gën bu bi nag boo mënee waxe ba du jàll it baax na ba ci dentifrice sax noonu la mel dentifrice moom itam li tax ñuy bañ nga def ko ci bëccëg bi dañu bañ dara jàll ci waaye bu la woon dara du jàll rek ba tey baax na wa tarkul mubaalaxati ak bàyyi jotal ga fil madmadati ci galaxndiku wal istinshaax ak saraxndiku dañoo waxoon ne galaxndiku saraxndiku moom bu fekkee ne wóoroo dañoo bëgg nga ñoddi ndox yi mu jàll ko ci biir waaye boo wooree ne ñu bëgg nga yemale ko ci bunt bi rek bunt gi mi ngi ak bunt bakkan bi ndax bu rëccee jàll koor gi day dog wa sawmu yow mi xarafata ak woor bisub arafa li xëyril xaaj ji ñeen kudul aji aj maanaam bisu arafa mooy buñ ne am nga xam ne ca la ñuy taxaw arafa ñuy acc yow nag bu fekkee nekkoo màkka doo ko takk ci bis ba waa màkka yi def juróom-ñeent ngay seet fa nga nekk rek yow bis ba juróom-ñeenteel ci weer rek moom ngay woor ndax léeg-léeg màkka jiitoo benn fan léeg-léeg ñaar ci doxalinu jaww ji bi wa yow mi ak bisub taasuxa wa xaashura nañ bis bu fukkeel ci tamxarit ak bis ba juróom-ñeenteel nga woor leen boo mënee woor yaar yëpp ñoo gën bu fekkee benn nga ci woor na nga def ko bis fukkeelu ba wa salaasati ayaamin ak woor fan min kulli ci wépp weer wala tax tasu tey du jagoo bil ayaami ci bëccëg ya albiidi yedi way leer ay guddi nee na sopp nañ wenn weer wu ne nga woor ci ñetti fan ñetti fan ñoo woor rek mu baax boobu ci ne faaw nga def ko bëccëg yi nga xam ne seen gudday leer yooyu mooy fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom yooyu seen gudday leer waaye yooyu takkuñu ko ci yoo ko defaree mu baax ku mel ni maalina maalina moom radiyallahu anhu dafa daan def bu ñu nee la teru moom weer boobu bu benn nga xam ne kon boobu moo njëkk ci fukki ñaareel yi di koy woor bu amee ñaar fukk amee ñaar fukk benn xam ne kon benn boobee moo njëkk ci fukk yi ci mujj moom itam mu woor ko kon moo la ñu tuddee ci wolof ay kumte naa bis yi kumte yi daal mooy bis yi njëkk ci fukk yu ne bis bu njëkk ci fukk bu ne daal noonu lay doon waaye teewul ni ñu ko waxee rek ñetti fan ñoo woor rek mu daal di baax wala yukrahu deful sib saw mu yawmil jumuhati woor bisub ajjuma mun faridan mun faridan mbir mu aji bero maanaam woor bisu ajjuma dong wóoroo bis ba ko jiitu te mër loo woor bis bu ko topp loolu eh, dafa ne addis ba da ko aaye waaye bu dee fiq maali dañuy jàpp la waroon aaya ga rek mooy bañ buñ ko defee far yàlla farataal ko te bu yonante bi xësee génn àdduna farataal wees na tax na kon ñoom bu dee ci ñoom sifatuñ ko wa yukrahu def na sib dawqul milhi mos xorom wa majjuhu akul yàbbeem maanaam wool ba noppi di mos ba xam saf na xoromam ndéet mbaa saf na suukaram déet di ko yàgg sib nañ ko daa wóoru ndax amaam dara jàll ci te kon koor gi la ko wala xale bi di lekk dara mu dëgër ci moom nga def ko yéel ba mokk nga jox ko moom nga yàbbi jox ko loolu wóorut ndax bu ci dara jàllee rek koor gi doo ko wa muqaddamaatul jimaahi ak yañu jiital njëkk booloo kal qublati ni ki foon wal mubaasharati ak jonjoo wa tafakkuri ak xalaat wal nazari ak xool al mustadaami ba di bu ñu saxal wal ak fawante te yooyu yëpp in xolimat ndem xameef na asalaamatu mu mucc ga maanaam su xamee ci bopp ni yëpp bu ko defee du tax dara génn ci moom ki fóonanteeg ka muy seel wala jonjonteeg moom wala jekk di ko xalaat wala di ko xool xool bu yàgg li foonteeg mu yëpp ko wóorin daal du tax dara génn su boobaa dañ koy sib képp yam ci ndax mu nekkoon def leneen lu ëpp tuyaaba ci biir koor gi moo gën kon lii sib rek lay doon wa illaa bu fekkee xamu ci muccam nag ci gi mooy mu wër ko dara du génn ni ki masi mbaman yi loolu mucc gi bu ci xamul loolu nag wa illaa ndéem déet fa kon dana araam xale yi ci moom bu ci xamul bu wóorul bu wóorul boppam ne dara du génn kon day araam mu def dara ci yooyu su ci defee lenn ba mat yu génn faaw mu fay ci defee lenn ba man yu génn day boole fay ak kafaara boole ci wala yuftiru du dog asaa imu aji woor ja almutatawixu jay aji coobarewu li xasimat ngir dogu keneen dogu mooy mu ne la mu dogu ci yow ne la faaw nga dog aw xëy di xaawalul moom nee na soo wooree koor goo xam ne yaa ko defal sa bopp ngir yàlla bul defee ne dal koy bàyyi yomb na bu kenn dogu woon ceew ne la bàyyi te nga bàyyi sa koor gi niki moom dalaa toggaloon añ wala xéwal nga ñëw rek fekk nga woor mu dogal ne la kat yow laa defaloon lii faaw nga dog lu tax nga sañ dog ko dara warut tax nga dog ko ndax warutoon waaye boo si xas bu dee soppiku lu war waaye in xalafa ndéem gi na xale ci moom bi talaaxi ci passé ak talaasi mu di ñett aw xisqi wala gorek ab jaamam xam ni sa kon teeñu loof ko teeñu loof ko mooy kon ñu teg kon ñu bàyyi ñu ñum tebbi ko nga woor ngir yàlla rek xam ne moom du kooru farata am ku la wax ne la waat naa ci yàlla ne soo dugul sa koor gi saa soxna fase ñetti fase wala sama jaam bi da ngay jàpp sa koor rek yow ko moom bu jant bi sooyee soxna am fase ñetti fase wala jaamam ba gore waaye loolu tax yow nga dagg sa koor gi illaa an yakkoon ndara bu dafa nekk ahada walidayhi di kenn ci yaari waajuram aw cheikhahu wala muy ëpp sëriñam fa innahu naka moom yutihuhu dana ko topp ida kaana dem nekk na xalaawa ci rëfati ci anamu ñëwante li idaamati sawmihi ngir saxalu kooram nee su fekkee ne ki la wax ne faaw nga dog nag day sa ndey mbaa sa baay yërëm gum la yërëm ci koor gi moo tax mu dogu ju ne faaw nga dog kon say ba topp ko ca dog damay sëriñ bi nga jaayanteel ci yoonu yàlla ne ko loo mu ci yàlla digle ma loolu aaya mu bàyyi ko fekkee ne moom moo la digal dogg it say boo dog ndax moom la tax mu wax la ko xam na ko wa man aftara ku dog fii nahaari ramadaan ci bëccëg ramadaan xam nañ ci tey aw saxoon wala ci njuumte wajaba kon war xale ci moom xadaawuhu ak fayam nen nag ramadaan moom saa yoo ko xasee dog rek bu dee ci fiqu maalik moom faaw rek nga war a fay doon dangaa juum nga xam ne tëyoo ko it mook tey gi ci fay gi yenn ngir nag mën naa am ñu addis ba wax ne bu fekkee da ngaa juub rek yàlla la leel kon dara nekku ci waaye fiq maalik moom du tee nga fay bu fekkee yaa ko tey na nga boole ci léegi ñu bëgg a wax waaye sama dana bakkaaru inkaana dem nekk na xam dan dik tey bu fekkee yaa tey dog gi moom ci ramadaan kooku dana xot def nga bu rëy rëy la wata jubi dana war xale yi ci moom alkafaaratu alamaan bi ahadi salaasati asiyaa ci kenn ci yetti yëf xalaat tax ci ko tànn waaw nee na saa yoo dogee weeru koor soo dogee benn bis ci koor gi te tey ko muy ci ramadaan dañ lay alamaan alamaan gi nag kenn ci yett yi boo ci tànn rek baax na wax yee ñoom imma ithaamu sittina benn leel juróom benn fukk miskinan ci miskin kullu waahidin kenn ku ne muddul mudd lay doon bi mudd yi ci mudd yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxoo te moom afdal moo ci xeeti kafaara yi aw siyaamu shahrin wala woor yaari weer mutataabi'ayn aw xitqu raqabatin wala goreelu jaam muminatin bi aji gëm kaamilatin bi aji mat xayri mu lafaqatin bopp du lu ñu tàppe du lu ñu tàppe mooy doo mën a goreel tey genn wàllu jaam dem leel genn wàll ci li mu ci miskin yi wala goreel genn wàllu jaam dem war wenn weer leen nga ci topp waaye yett yi doo ci jël cëlee jël cëlee salimatin bi aji mucc day mucc ci ay ayib yi nga xam ne moo koy tee doy ay yooyu nag booy jàng téere mag yi daañu ko wàññi mu bari lool yu tee jàmbee doy ci lañ la koy laaj laa laatus ta xaq boobu def ko mën a yeyoo bu wàcc ci genn anam maanaam day nekk jaam boo xam yaa ko moom wér-wér nga xam ne kenn mënta wax ci yoon ba yooyu la ne la maa ko moom ba yoon jox ko ne ko yóbbu ko loolu day nga moom ko wér-wér kon yett yaa ngoog benn nga leel miskin yi juróom benn fukk lay doon kenn ko la jox ko bu libar wala nga woor yaari weer yoo xam ne susaloo boo ko boo ci dogee benn tàmbaliwaat ko waree jaam bi nag léegi moom jaam dafa amatul moo tax waaye bu doon mooma day aajowoo jaam nekk bu gëm ab julit du doon nekk bu mat bu fekkee moom kaara ba kees wala genn wàll nga boo ko reeree du doy te niñ ko waxee nga bañ koo tàppeeg benn xeet ci anami kafaara yi te itam mucc ay bi koy tee doy te nga moom ko wér nga xam ne kenn mënta wax ba nangoo ko ci yow ci yoon al baabu li mooy bunt bi alxaamisu bi aj juróomeel fi i'tikaaf ci i'tikaaf i'tikaaf da ko far sàkkal bunt daf ko faslu defal ko bunt wa xaqiiqatuhu ab dëgg-dëggam allubsu mooy sax fil masjidi ci jàkk ja lil xibaadati ngir jaamu yàlla xalaa wacc xeen ci anam maxsoo si guddi guñ jagleel mooy guddi guñ ràññeel nee li i'tikaaf mooy nga sax ci jàkk ja te am te am jaamu yàlla goo xam ne ko ràññeel nga nekk ko fa jaamu yàlla woog na mooy nga woor bëccëg bi te saxoo jàng alxuraan ak tudd yàlla ak julli naafila rawante na farata yi yooy xeetu jaamu yàlla lañ gën a taamu bokk na ci jaamu yàlla ga itam mu bañ a jote ak lépp luy xeetu jote jigéen du ci bëccëg du ci guddi waaw bokk tam weeru koor nga xam ne moom guddi gi bu wóorut guddi gi moom bokkul ci koor gi bu la neexee jo bu neexee jotee ka muy hmm, moom bu koy defee rek du jotee moom bu keroog muy jeexal du du jotee ka muy du guddi du bëccëg wa akmaluhu gën jaamatam xasharatu ayyaamin mooy fukki fan nee gën ah, wa ak nga njëkk wax ne wa aqalluhu gën jaa néew yow mun moo di ab genn guddi te lum néew def ko guddi ak bëccëg nga ngay ci guddi ci jàkk ja ba ci ba nga yendu ko fa woor ko